Saliou Khoule. Khoule waaw eh Djili waaw Saliou Khoule yow xam nga Khoule dama ko bàyyi man maa bàyyi saali Khoule. gis nga mais Djili Kébé mu liggéey bëre combat capital. waaw dugg ba ci biir siège ah, ki nga xam ne mooy liiru Diane di ñëw ci xewu Balla Gaye daa mel ni am na lu mu la jiite. li ma la waxoon rek dama ko doon wax ne gënumaa bokk mu tee bala dafa am ngente wax ma ko xam nga fan yëpp maa koy sani ay xeer sax mais. wut mu ne ma yow sa sama rakk sama xarit nga am ngente woo ma na nga ñëw lii moo war ne liiru maam géejawaay man maa ko moom c'est que moom dafa bëgg a moom géejawaay mais mooy monument bi mais man géejawaay laa dëkk léegi nag monument bi laa bëgg daane wut beneen monument samp Mm. waaw. mais tey boo ñëwee ci xew bi gis bi Sa gis ba du la attaqué dóor la mu non ñoom ñëpp samay waa la ñu <laughs> non Sa Thiès mu attaqué li yëpp mooy sport. sport day boole benn ak Sa Thiès. rek bala xam nga bëri fi ne macha allah mu am ngente woo ma su mu amee doom la ma woo ci guddi na ma sama jabar dafa am doom samedi ra ngente bi xam nga loolu aussi. dafa rëy quoi waa mm. parce que am na bëri yu ma gën a màgg waxu leen ko. kon su ma ko waxee dama koy dama damay ñëw quoi di xamaan ñëpp ne nag nañ ma ñaanal parce que combat bi combat rek la waa <laughs> mais di xam géej wala dëkk lii du am na problème même Assis Ndiaye woo na ma quoi ah, ah, même Assis woo ma ne dama doon soob rek gamu gi mais yow laa faral bon géej waay may borom waaw. Saliou Khoule borom Zik FM. Saliou Khoule président ñaari Serigne Saliou toog. tey ngeen amaat beneen turandoo Balla Gaye 2 tuddee ko Serigne Saliou <laughs> waaw lu ngeen yëg ah, Omar moom taalibe la hmm. taalibe la man Serigne Touba rek laa jàppee nit hmm. waaw te Omar taalibe la waaw tuddee na doom Serigne Saliou c'est normal muy sama xarit damay dem nii sax rajo mais nag moom moo ma ko jaral moo tax ma jaar fi te Omar day nit ku baax Omar yoru xolu mbër sax Omar nu mu def ma nekk mbër sax jaaxal na ma yoru xolu mbër Omar dafa gentil Omar nit ku baax la daal bi Serigne Touba dëgg la. ñu woote xel comme tey mu am doom bu góor tuddee ko Serigne Sall. waaw hasard amul fi mu tombé fii a baax sax hasard amul ma ànd ak sama copain nag wulli mu am combat ak liiru jaan dana rey riiru de. loolu du lamb dana ko rey de. wan naa ko nee naa leen géej gi wala xam nga sax sax suuf mu naan bala gay moom mooy géwlu bala moom mooy géwlu bala gay d'accord mais man bala sama xel la yàgg naa ko wax te lii tey. wane na ko waaw merci. jaajëf wuli. day soo waxul dëgg c'est pas vrai waxul dëgg bul ma laal. waxul dëgg c'est pour vrai. monument bi dama ko bëgg daaneel def waxoo dëgg tuutal nga ci daaneel monument waxoo dëgg c'est pas vrai tuutal nga ci daaneel tuutal nga ci daaneel. wuli daal bu leen yàq wala leen daal ma dem xam nga aji sama waay la mais maam Thierno Birahim borom ndaamal daaru ku woo ne la ñu gamu sama kër waaye waa loolu la moo ko gën a neex maam Thierno Birahim borom daaru muxti borom sikoori ma gamoo fa loolu boo gamu si maam Thierno fan nga war a gamoo ñu bari ñu bari ne sa combat. wuli yow man yow nga ko xam yow nga ko waaj yow nga ko xam. bu ma woo de bu ma woo si combat bi daal sama yoon newu si sama yoon newu. ba mooy man la jàpp. jàppale wu ma ko de jàppale wu ma ko de jàppale wu ma ko. jàppale wu ma ko de. kilifa yi gi ñu wax yëpp ma bokk kii ba mu may bokk du léegi. sama ko baag big pato ba sëñ Tuubaa da ci bu baax a baax dafay hmm. dëkk liiru lam moonu boolee mu ngi mais géejawaay man fa dëk dëkk dafa booju mii man la faral te mooy doom day Balla Gaye Balla Gaye sama xarit moo ma woo dama ñëwal mais wuli dañoo gis nga attaqué Balla Gaye attaqué Sa Thiès loolu lépp pour jaay combat la hmm. neexal quoi dañu jaay combat pour mu neexal mais Balla Gaye champion la sama waay la ma koy tooñ yooyu yëpp pour tooñ la quoi jaay combat mais moom sama xarit la sama doom ndey la ku ma bëgg la si chaque jour dañ ma woo téléphone. bi ñu gis nga ci doon tudd Aziz Ndiaye lu bari. combat bi mel ni Aziz Ndiaye mi nga xam sa xarit sa doomu ndey liiru jàll la àndal ndax nee na liiru da lay nga daanu. Aziz non sama xarit la. bak dem woo na ma te fa bak Sëñ Tuubaa après vidéo xamal ma ne ma yow sama xarit nga sama rak nga sunu kër ñëpp la xam. Mm. mais bu def gamu liiru ñun ñëw na sama kër. waaw te lekk ko fa andi woon. foog man wax noonu mais yow laa àndal bak suñu taw woo na ma téléphone. Aziz non Aziz ñëpp timale ko caméra yi. mu ne dalay dóor nga daal. non mais wala appel vidéo preuve wanal preuve Aziz Ndiaye Malcolm jël leen. am appel vidéo wala moo wax barke Sëñ Bamba jël leen. ne ma Aziz Ndiaye moo la woo ne ma barke Mouhamad Aziz Ndiaye nee na. mu ne ma ne ma. ah liiru lekk ko fa andi. waaw te yow dañ fa doon ñëw di fa am 15 jours. Hmm. kon ren boo ñëwul. Hmm. dama lay comprendre. nee na yow làmb ji ci gàllañ nga ko teg. waaw lii leer na naa ñu. waaw leer waaw. parce que suñu bamba na ko caaxaan. waaw waaw léegi kon Aziz. dama damay soog Aziz kon yéen ñaar faralu ci kenn ci li ma jàpp. non Aziz ndax ku ci nekk. non Aziz dina yàgg Aziz baayam daf ma xam yaayam xam ma ay rakam xam ma ay magam xam ma. Hmm. wax na ma ko ne man man liiru mos a toog ci télé gërëm ma ñëw Tiwaawan ba Tiwaawan di di am ba tey mos fa ñëw kon ren gamu gi bu ñëwee Tiwaawan sa kobaak moom moom a tax quoi mais lekk ko fa andi te yow da nga fa doon ñëw di fa am 15 jours di liggéey. ñëpp nee nañ sa combat yow ak Lirou jaan dóor mu daanu lay. waaw